ma xoolal ma ba xam élection présidentielle 2024 mën naa see bokk yéen kay gi di réew mi quotidien nee na kii nga xam ne ab juriste français la agressé ci lu jëm ci wàllum droit public tudd Guillaume Drago nee na ko bi mu ko càmbaree xool ko biir ak biti nee na ko mën ngaa sampat sa ndënd ci élection présidentielle 2024 yéen kay gi nee na Macky Sall jamono ma ngi gën a li nga xam ne mooy ab toogaayam ginnaaw bi ko Ismaïla waxee na ko Macky Sall nga sañ-sañ sampat ndëndam waaye nag nee na li ñu ci ki nga xam ne mooy professeur Kader Boye nekkoon fi recteur ay jamono daan nay wax ne Macky Sall amul sañ sañ sampa ndëndam ci élection présidentielle 2024 ndax article 27 bu constitution bi da ko wax lu leer naññe yéen kay gi di Sud Quotidien ak L'As ñu xëy fekk fa Cheikh Tidiane Gadio nee na Macky ci boppam bu ñu waxantee dëgg amul sañ-sañ sampa ndëndam ci élection te Macky nag jamono ji dafa war a dellu si xelam bañ a topp ñi xam ne ñoo nekk si ginnaawam di ko sóobuloo ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature taskanu Macky Sall li mu def ci réew mi bëri na naam am na lu bari loo xam ne lu des la am na tamit lu bari loo xam ne war nañu ko jubbanti moom Cheikh Tidiane Gadio daan nay wax na ci Sénégal maanaam war nañoo xoolaan mbir yi ndax président yi li ñu leen di jox ci sañ-sañ maanaam dafa bëri loola doole ji ñu leen di jox dafa bëri maanaam ñuy bum di bum mi loolee nañu war a daal di jeexal ci réew mi journal bii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Sow muy mel ni kuy tontu Cheikh Tidiane Gadio moom ministre Abdoulaye Sow daan nay wax ne lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature président Macky Sall bakkanam la ci teg yéen kay gi de Le Quotidien yor yor nee na am na ay professeurs yoo xam ne dañu leen a bëgg a sànk maanaam dañu leen a bëgg teg ay daan yoo xam ne tegiwul fenn ay daan yoo xam ne dafa sukkandiku ci wàllu manipulation wàllum wax lu dul dëgg ak wàllum règlement de compte nee na professeurs yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ci lycée Jululu nañoo génn woon élèves yi dara du ci dëgg journal bi andi na ci ay leeral yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diante daat nay wax ne dossier nga xam ne moo dox diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko fi mu yegg si wóoru foon a yegg si dem sax ci chambre criminelle ndax ab dossier la boo xam ne dara nekku ci li nga xam ne moo wundu wax ji lépp muy bëgg a éliminer Ousmane Sonko te saa sunu amal ay manifestation maanaam nit ñi defaatoo yéen kaay gi di Source A xëy ñu xibaar naan ñu Sonko seul contre tous ndax Ousmane Sonko jamono ci coow daat na koy ñu baree bari ñoo ngi koy di gauche beeg droite beeg fu ne la ñu koy songee yéen kaay gi ne ne Idrissa Seck di Abdou Karim Fofana di Victor Ndeye kenn ku nekk wax na Ousmane Sonko lu ko neex yéen kaay gi di Direct News nee na ginnaaw sortie bi Ousmane Sonko def ci Walf la ñu génn yoo xam ne daan na ko ak bi sa Seck ak na mu ñëwee këram na ko Ousmane Sonko nettalee ak lu jëm ci wàllum xëdd bi Ousmane ko doon wax loole lépp sa sekk daat na koy wedd ba tëdd sa naaj waa Idi nee na Ousmane Sonko ci boppam xam na ne li mu wax dara du ci dëgg te nag wax lu dul dëgg loole yàlla sunu borom day jël nag ay musiba di ko teg ci kaw ki nga xam ne mooy wax lu dul dëgg sa Seck nee na Ousmane Sonko jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci lu jëm ci wàllum yoona jëm ci wàllum diffamation ak lu jëm ci wàllum viol moo tax ma yem ak moom fii waaye mi mënoon naa gën a tar Thierno Bocoum ci biir journal bi moom ci mer na ba mara Italie ci kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati ndax Ousmane Sonko nee na gaay yu bari ñooy wax ci moom waaye nag moom du wax ci ñoom du tudd seen loole nag Thierno Bocoum daf cey boppam ndax nee na Ousmane Sonko fii la leen tuumaloon daal leen di tooñe ci élection législative daal leen di yàqal te nag loolee Ousmane Sonko tegu ko woon fenn te da leen a yàqal tuumaal ay góor Thierno Bocoum daal nay wax ne Ousmane Sonko jamono ji war naa xoolaat boppam maanaam war naa revenir proximité bu dox seen diggante ak ñi nekk ci ministère bi nga xam ne Victorine Ndeye moo ko jiite loolee Victorine Ndeye daan na koy weddi nee na man ci sama bopp xam naa ne Ousmane Sonko waxul dëgg te Ousmane Sonko moom ci boppam xam na ne waxul dëgg yéenekaay gi di alerte ñu xëy fekk fa Abdou Karim Fofana porte-parole gouvernement bi moom tim daan wax ne Ousmane Sonko jamono ji ci ay manipulation la nekk ci lu jëm ci wàllum procès Sweet Beauté bi Ousmane Sonko dafa war a dem wuy ji yoon danañu ko ko def waaye nag bu bëggee jalgati yoon maanaam yoon dina tegu ci kawam ba tey ci biir journal bi dina ko Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag dem nañu ci ministre bi ñu dénk wàllum justice ngir nag condition yi Ousmane Sonko teg waaye nag loolee dañu ko ko lànkal ndax Ousmane Sonko li mu bëggoon maanaam ñu bàyyi ko muy dem ak dikk ñu bañ ko jël nag ab blocus di ko teg ci këram gi nga xam ne moo nekk si cité kër góor gi loolee dañu ko ko daal di lànkal yéene kaay gii de la sa maître Ciré Clédor Ly nee na jamono ji bépp teg loxo bu ñu teg loxo Ousmane Sonko maanaam lu illégal la lu jaarul ci yoon la ndax ñi nga xam ne ñooy waa tribunal la ñoom rek ñoo war a fësal ab ordonnance de prise de te loolee ci boppam amagul ci mbir mi li am ci journal bi de Le Quotidien mooy Ousmane Sonko daal nay jot convocation ma fukki fan ak benn ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu génna yéene kaay gi de Le Peuple ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Massaly nee na Ousmane Sonko ci boppam moo war a bàyyi manipulation yi nga xam ne moom la nekkee tey wax askanu Sénégal dëgg tey bàyyi xale yi nga xam ne maanaam ma ngi leen di naax moom Mouhamadou Lamine Massaly ci biir journal bi de Le Peuple daal na fay liste lu toll si junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay wax yoo xam ne wax yu dul dëgg la yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko wax yéenekaay gi di Vox Populi nee na étudiant yi nga xam ne ñoo bokk Pastef mer nañu ba futu nee nañu ci lu jëm ci wàllum procès Adji Sarr Ousmane Sonko bi maanaam bi ñetti fan yoo xam ne dañu koy grève ngir nag jàppale ko di Bassirou Diomaye di sunu xibaar naan ñi nga xam ne ñooy mbëri VIP yi jamono ji nag wane nañu seen taxawaay ndax Macky Sall la ñu àndal mbër yi nag Eumeu Sène daal nay wax ne ñun Macky Sall la ñu àndal ndax Macky Sall c'est un travailleur maanaam liggéeykat la manifestation yi nag képp ku si gaañu maanaam yaay perte kaddu yi Eumeu Sène la Balla Gaye de jël kaddu gi nee na ku ñu jàppale ñu jàppale la Modou Lo moom dem jël kaddu gi ne na senegal Sénégal jàmm la ñu soxla te nag nguur yàlla moo koy joxe te yàlla ku mu jox nguur ku fi nekk di ko jéem a opposé da ngay sonal sa bopp. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue